على من ولا لو ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi rahmaanirahim asalaatu wasalaamu aleyka yaa rasulullah alayhi salaatu wasalaam asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di ziar bu baax mbokki jullit yi teewlu ëttu soxna yu baax yi ci suñu page facebook ak ci suñu chaîne youtube ñu di leen bëggee te di leen sant ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun te di leen dalalaa ci seen jotaay bii di yoonu ndaw ñi ngeen ci ànd ak seen mbokku taalibe soxna Maxabatullaahi ñuy ñëwaat ak yeen ci seen jotaay tey bi di mottali fi ñu tegoon suñu loxo ci fàttalante boobu muy dee nga xam ne ñu ngi tegoon suñu loxo ci ki nga xam ne ak sukuraatam dafay metti day tar kon ñuy wéyal loolu ci ki nga xam ne sukuraatam day sedd guyu muy ki nga xam ne dafa nekkoon ci àdduna nekke fi topp ndigal li suñ boroom yi subhaanahu wa taala jublu yàlla déggal ko te daan ko topp daan góor góorgóorlu diggam ak boroomam lépp li ko waroon ci diggam ak boroomam subhaanahu wa taala daan na sàmm loolu di ci góor góorlu wone ci Pastef li nga xam ne suñ boroom daan na ko ko tere muy jéem kem kàttanam ba daan ko wattandiku kooku ak deewam dina sedd guyu dina woyof tooyu nga xam ne bu demee ba toll ci waxtu sukuraat moom suñ boroom day yebal ay malaayka yoo xam ne malaayka yu taaru la ñuy doon malaayka yu set yu sell yu neex xet te neex kàddu yoo xam ne gis leen rek doy na bànneex gis malaayka yooyu rekk wala nga dégg leen doy na bànneex malaayka yoo xam ne eh, seen taar mënisu la ko misaal ak seen kàddu gu neex ak itam seen seen seen jëmm nga xam ne buñ dikkalee maanaam ki nga xam ne moo war a génn àdduna muy kooku déggaloon boroomam dañ koy dikkal ci anam wu wu neex anam wu nooy woo xam ne buñ ñëwee ni ko suñ boroom waxee rek alladina tatawafaahumul malaayikatu tayibiina yaquluuna salaamun aleykum nga xam ne ñoom malaayka yi sax bu ñu agsee malaayka yu dal yooyu te teey yooyu bu ñu agsee sax ñoom dañ koy nuyu waaw ah, daat koy nuyu ne ko asalaamaaleykum waaw ah, kay waaw ah, xamal ko neko moom buntam moom mooy buntub aljanna daal di dalal xelam waaw udxulul jannata bi maa kuntum taamaloon xamal ko ne ko yow sa buntu moom mooy buntub aljanna waaw xelam dal ñu dalal ko ngir ne moom kat dafa dafa nekke woon ci àdduna jaamu yàlla ak topp yàlla te loolu suñ boroom gisoon na ko te itam jàpp na ko waaw noonu mu nekkee woon ak suñ borom fii ci kaw suuf looloo waral itam suñ borom subhaanahu wa taala taxawoo ko noonu ci waxtu sukuraatam boobu nga xam ne melokaan yi ko malaayka yi di dikkal dana sedd xolam lool dana ca bég lool waaw nga xam ne daanaka sax day yàkkamtee sax génn ci àdduna bii nii ni àdduna bu taq bu tilim bi te xat te lëndëm lool bërëb bi daf fi yàggee dafay dafay dafay yàkkamtee sax maanaam génn génn ba dem ndax foofu maanaam li nekk ci kanamam lépp dañ ko koy muril dootu ko um dootu ko umpati nga xam ne dootul doon kumpa ci moom waaw na kashawna anka ghitaaka fa basaruka al-yawma hadiid nga xam ne lépp loo xamante ni nii kiiraay woon bu nekkoon ci kanam dañ ko koy muril waaw muy jàkkaarloog maanaam la la ca kanamam waaw muy muy muy taar taar taar ba mu war a jàkkaarlool ca aljanna ak ak ak yu neex yi nga xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala moom la ko war a fayee mu jàkkaarloog loola nga xam ne malaayika yi buñ bu ñuy ñëw dinañ dinañ indi maanaam mbalaan mu nooy mu neex xet taaru lool yo boo xam ne ña ngi ko jële ca aljanna waaye daal di indi gëtt gu neex a neex muy xet gu neex goo xam ne itam ña ngi ko jëlee ca aljanna maanaam ci loolu noonu ci lañ koy waajalee ci la ñuy waajalee maanaam ak ruuxam jamono boobu mi ngi tolloog jamono bi nga xamante ni nii maanaam ñi ngi sang jëmmam fii nii ak di ko waajal maanaam fii ci àdduna ñi ngi sang jëmmam ak di ko di ko waajal ah, jamono boobu malaayka yi moom it ña ngay ña ngay toppatoo ruuxam ak di ko waajal ah, kay daat koy lëmës ci mbalaan moomu nga xam ne ña ngi ko jëlee ci aljana muy mbalaan mu neexet moomu daat koy sotti gëtt gu neexet googu nga xam ne itam jëlee nañ ko ca aljanna daat koy daat koy daat koy gunge nag daa di daa jël ak xam nag daa di fas yéenee ànd moom ànd moom jëme ko ci suñ boroom subhaanahu wa taala nga xam ne malaayika yi dañ koy wër waaw daat koy daat koy escorté daat koy wër ànd moom jëm moom ci suñ boroom bunyi damba dem ba rombu asamaan yi muy juróom ñaari asamaan yi buñ fay jaar asamaan suñu romb rek muy asamaan su njëkk si su ñaareel si ñetteel si ba si bu juróom ñaareel bi asamaan suñu romb rek malaayika yi nekk ci asamaan soosu dañuy laaj dañuy laaj malaayika yi ànd ak maanaam ruu googu ne na ne leen kan la ñu ne ko kii de mooy diw doomi diw ak diw waaw ñu ne ah moom day maanaam xamoon nañ ne moo ciy topp ndax jamono yii yëpp ay jëfam mi ngi fiy jaar di di di di dem waaw nga xam ne jëf bu baax boo jëf rek maanaam du fi toog maanaam fi mu ne saa yoo jëfee jëf lum lum tuuti tuuti tuuti bu dee jëf ju baax la di dina yéeg ba ca suñ boroom subhaanahu wa taala looloo waral maanaam malaayka yi di wax loolu buñ ne kii kan la ñu ne kii mooy diw doomi diw ak diw ñu ne ah moom day xamoon nañ ni moo ciy topp ndax jamono nii yépp ay jëfam mi ngi fiy jaar waaw di fi jaar yéeg di dem ci suñ boroom subhaanahu wa taala kon jëf lu baax am na solo lool xamal ni saa yoo jëfee jëf ju baax rek maanaam noonu lay demee ba ci sa boroom subhaanahu wa taala waaw ñépp di ko gis malaayika yépp di ko gis xam ne saa bu jëf ji rombee rek di dem ci suñ borom maanaam malaayika yi dinañ xam ne ah jëf ji kat diw moo ko jëf diw diw sàngam doomi diw sàngam ak diw sàngam moom moo jëf jëf ji waaw ñëpp daat koy xamandoo malaayika yépp xam ko kon jëf lu baax jar na jar na jar na daw ba dee nekk ci àdduna di jëf jëf lu baax jar na dawa dawa daw ba faatu nga xam ne noonu noonu lañ koy jàppoo asamaan suñu romb rek malaayka yi daal di laajte loolu kii kan la kii mooy kan ñu ne kii de mooy diw waaw malaayka yi ànd ak moom daal di tontu diw doomi diw ak diw ñu ne ñoom itam ñu wax loolu muy waa asamaanu ñaareel ne ñun de xamoon nañ ni moo ciy topp ndax jëfam mi ngi fi doon jaar waaw nga xam ne noonu lañ koy jàppoo ba àgg ci juróom-ñaareelu asamaan waaw malaayka yi daat koy jël nag daat koy yóbbu ci suñu boroom subhaanahu wa taala fekk waajal nañ ko ba noppi jël yóbbu ko arash waaw mu jàkkaarloog boroomam subhaanahu wa taala foofa dana jàkkaarloog suñ borom suñ boroom maanaam maanaam laaj ko amaana laaj ko amaana na naka naka naka naka la doon doxaleek maanaam lam signé woon ak moom lam pacte ba mu signé woon ak moom naka la ko doon doxalee fii nii ci àdduna bu boobaa it dana am lum tontu waaw ah, moom moom moom moom kooku kook nga xam ne moom moo faatu ba agru xam ñu ñu def ko noonu moom dana xam lu muy tontu te itam dana am lu mu tontu ndax lii tax muy am lu muy tontu mooy amaana ja nga xam ne signé woon na ko boroomam subhaanahu wa taala moom day bam nekkee ci àdduna fàttewu ko woon moom day amaana jooju jamono bu nekk da daan teew ci xelam mu xam ne signé woon na ak boroomam. Euh, maanaam maanaam maanaam benn pacte te loola itam ca la nekkoon loola ci la nekkoon daañ ci dund mu looloo tax bu demee ba ci suñ kanamu boroom bu ko suñ boroom laajee dana am lu mu ko tontu te itam dana xam la muy tontu nga xam ne bu ko suñ boroom jàkkaarloog moom wéet moom ba laaj ko ba noppi ndeysaan ci la malaayka yi maanaam jamono yooyu mi ngi tolloog fii nii maanaam buñ buñ waajalee jëmmam maanaam buñ waajalee jëmmam koor bi buñ ko waajalee ba ba di ko jullee ka ñaanal di ko ñaanal njéggal waaw mi ngi tolloog loolu fekk boobu ruuxam ma nga ca suñ boroom subhaanahu wa taala ba ba mu gisee suñ borom ba noppi suñ borom daa di digal malaayka yi ngir ñu jël ko daat koy fas yéene yóbbu nag ci bàmmeelam nga xam ne buñ demee ci bàmmeelam danañ waaj danañ ko ko waajalal mu am bàmmeel bu yaatu bu leer naññi bu set wecci bu gën a leer àdduna te gën koo yaatu maanaam bàmmeelam moom mooy gën a yaatu àdduna ji nga xam ne jóge na fi moo koy gën a yaatu fuuf gën koo leer naññi nga xam ne gën koo neex bu nekkee ci bàmmeelam maanaam fekk waajalal nañ ko ko fala malaayka yi di ko laaj si di ko dikkal di ko di ko dikkal si waa kay malaayka yi nga xam ne ñoo ko war a laaj maanaam ci lañ koy dikkalee muy mun munkir ak nakiir waaye ñoom itam bu ñuy ñëw dañuy ñëw ci melokaan wu wu wu dal wu teey waaw ñoo xamante ni nii maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu yërmande malaayka yi yërmande la doon waaw maanaam bu ñuy ñëw di ko dikkal si ci yërmande ci lañ ci lañ koy dikkalee ak ci taar ak ci ci dal ak ci teey ak ci xet gu neex ak ci xet gu gu gu sell waaye tam ci jëmm yu taaru waaw ak ci kàddu yu neex te dal waaw fas yéene koo laaj nag maanaam lañ ko war a laaj bu boobaa itam dana am la mu tontu dina am lu mu tontu ndax dina dina dina dina xamle ne maanaam nekkoon na ci àdduna ci ci ci ci topp yàlla maanaam ak topp ab yónnentam ak maanaam jàpp ci alxuraan ak suñ na ak maanaam doon góorgóorlu ci diggam ak boroomam nga xam ne luñ ko laaj rek dana dana dana ko tontu ba mu mat sëkk nga xam ne foofa nag fa lay nekkee ci ci ci noflaay ak ci ci ci ay teraangaa ki xéewal ñu di ko fa fekk suñ boroom tawféexalee ko ko kon gis nga njariñul ki nga xam ne moom moo nekk ci àdduna fàttewul yàlla maanaam di topp yàlla ci liko ko suñ borom subhanahu wa taala digalaloon digaloon rek maanaam ca la nekkoon waaw nga xam ne moom mooy safaanu ki nga xam ne moo nekkoon ci li ko neex nekk ci àdduna fàtte yàlla wala di tanqam lu suñ borom ñàkk a topp suñ borom ñàkk koo déggal kii nag kon lii mooy doon maanaam fayam kon dañuy tegaat foofu suñu loxo yamandeeg yéen foofu mbokk yi di leen joxaat dig daje beneen yoon ci suñu jotaay yoonu ndaw ñi di jéggalu bu baax a baax ci mboolem kàddu yi lépp lu ci dëng rek ci suñu di la ak ci suñu matadi ñu koy tuubal suñu borom bu baax te di leen ko jéggalu waaye itam lépp lu ci jub rek bañ mën koo dégg ñu di xam ne yërmande suñu borom la ak kàttanam ñu di ko ci sant bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Page TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné ci sa chaîne YouTube te yaatal say xarit say